leeral mbir mi parce que xam naa ni moom euh, ñoom ñoom ay ñoom Sonko moom gars yi nañ leen di li maire li maire yi naan ah man daal maa ñaaw yaay dina leen bëgg li dal nag xam nga guddi ñu toll nii guddi ñu nii dafa am ñoo xam ne dañoo nekk ci jamono yi def seeni propre reddition des comptes parce que si y a un changement de régime da ngay daal di gis ñu bëree bëri ñu nekkoon ci ay action dañoo dëgg bal bi ne mbër toogal ñu xaar tuuti xool affaire yi gars yi fan lay mujjee xam nga li ma la wax installation ministre yeeg nangam sàngam wala noo sa waaye nañ bàyyi ba ñu installé assemblée national parce que fi nekk nii moom dañoo nekk ci guddi gu bët setagul est ce que du ñu xaar xam nga fi génn léegi nag coow lii bu amee nii am na benn journal sax bu bind ne normalement entre ses actionnaires et le ministre de l'énergie waroon nañoo am rencontre le ministre de l'énergie Birame Souleye mais boo sàgganee rencontre ba danañ ko mujj ba mm-hmm. les actionnaires du bayit ñoo ñuy tey ci lundi bi tey la ñuy si Dakar parce que le fait que ñu ne am na ci quinze pour cent y a l'état nga ca wala bu ñu waxee ne France Télécom dafa am 43 pour cent ci Sonatel état 27 euh, nu mu tuddati euh, yi am 15 xaw ma 10 agents yi am 10 le fait que ñu ne état Sénégal am na ca nangam rek kooku c'est le peuple. quinze pour cent yooyu peuple sénégalais moo ko am ci West African Energy kon état mënatu cee teggi loxoom waaye ñun dañoo wax origine coow li la ko indi nekkul état nit a porté plainte nit nit tamit porté plainte nit moo tax ba waaj waxee noonu keroog vendredi sa ngoon vendredi sa guddi porte parole du gouvernement bi sama doom moom damay def communiqué. ne ko li nga wax amut. démentir. nga bëgg a taxal nit ñi ne ne ne ne ne ne ñu ngi noonu di def acharnement si kaw yi ay nit <laughs> commencé dañu yéeg ci kaw nit ñi et te fi ngay xamee ne affaire bi nekkul état Samuel Sarr après plant bi après plainte bi moom ci la tukki. xam nga kon kooku teree ko mu tukki. Mhm. demal nga ubbi direct news nga liir teree ko mu tukki di. Mhm. dafa tukki bi mu ñëwaatee la évolution am ñu ne ko kaay wuyu. waaw kon waa kon waa jooju noonu wax ne léeg léeg léeg léeg léeg li ah li nga wax amut. <laughs> voilà amee ah, comme ni ñu. arrestation yooyu la jël rek taxase rek. Mm-hmm. wax ca wax ju réew jooju mu wax noonu. tey rek ñu ngi ci ay unies journaux yu bëree bëri. Mm-hmm. <laughs> lañuy li ñuy ñeen ñi doon wax honorable leeral na ko sànq mhm. que ni ça n'a ak li nga xamante ni moo ñeel reddition de comptes wala lu mhm. jëm ci mbirum état fa am ñu mu joteel lu jëm ci wàllum koppar loolu moo tax mhm. euh, ñu arrêté ko jamono jum toll nii présumé détournement lu toll ci huit milliards xam nga pour man jaara dañu war a éviter manipulation yi à un certain moment parce que xam nga tey jii Sénégal dañoo toll foo xamante ne ku sëqat sax wala kuñ jàpp rek ñu ne reddition des comptes lañ koo jàppee. Mm-hmm. pour man nag état bi ci boppam comme ni ko honorable waxee moo war a jël ay mesures am lépp loo xam ne ni ñu ngi koy jéem a en coloration ak reddition des comptes te du reddition des comptes ñu génn leeral ko. parce que lii mën nañu ne euh, c'est une affaire privée maanaam euh, ex PCA bu porte plainte ex DG wam ex DG bi aussi porté waat plainte contre nga xamante ne moo di ex PCA parce que honorable wax na ko léegi parce que ginnaaw buñ ko plainte moom tamit dafa ginnaaw buñ ko plainte moom tamit dafa ëlbatikuwaat plainte mbir boo xamante ne ñaari nit ñu jote la et pour man état lenn moo ci rôlam mm-hmm. soxna jaara mm-hmm. muy mu xool fa dëgg féete mu mu mu teg ko fa parce que kenn ku nekk ci ñun yaakaar naa ne am nga droit wala sax war nga toxal sa liggéey convenablement te lenn loo xam ne mbirum ñàkk fel wala lenn loo xam te ne ni gis nañ ne euh, mbirum euh, luubal la daf ci nekk mm-hmm. parce que bu fekkee ne dañu nekk ci dëkk boo xamante ne Euh, dëkkum euh, démocratie la comme ni ñu koy faral di waxee man en tant que sénégalais am naa droit def type de commerce bu ma neex mais ak condition que ma tënku ci ay règles ak ay lois yi nga xamante ne réew mi mu ngi koy nekk. Mm-hmm. et pour man Samuel Sarr bu fekkante ne sax tey jii. war nañ ko mën a jàppale bu fekkante ne buñ lëñbatee ay mbiram dans le futur mën nañ ko toppee lenn loo xam te ne nii mbiru Sénégal la nañu jàpp ne lii du mbiru Sénégal mbir boo xam te ne lu mu jotee ak nit la mm-hmm. euh, mu porté ko plainte après mbir mi peut-être ba mu jógee Dubaï ci voyage Dubaï am bi ci lañ ko daal di teg loxo fa la nga xamante ne moo di aéroport ñaa ko def mooy euh, police yi nga xamante ne ñoo nekk ci wàllu frontière bi. day wane wa day wane waat rek ni euh, jamono ji jaara il faut que nit ñi comprendre que ni. la woon woon ni na il faut que ñu comprendre que ni manipulation jeex na ci dëkk bi su mbir amee. ñi nga xam te ne ñoo war a joxe information nañ leen di bàyyi ñu joxe information ñi nga xam te ci dara ñuy bañ topp aussi réseaux sociaux yi nga xamante bu dara amee rek tey jii benn ami gis na wala foog na wala njoxtu na ne lii rek automatiquement daf koy bind léegi bu fekkente ne ami bu ko bindee après jaar copier ko honorable copier ko euh, sugu copier ko en fait bi dafay viral tu l'impression que loolu mooy dëgg alors que c'est c'est pas ça information mm-hmm. il faut que ñu éviter mm-hmm. am même ki nga xamante ne mooy concerné bi balaa muy àddu kenn koo xamante ne farul sax ak moom mais comme mu ngi opposé rek. Mhm. da ngay gis da ciy port loolu ci wax ay di ci avancé ay mbir yoo xamante ne dara leeru ko ci. Mhm. il faut que ñu loolu bu baax baax. Euh, uh-huh. arrestation Samuel Sarr euh, professeur nga ci def. waaw euh, soxna Diarra man je pense que jàngat bi ñu ci waroon def yëpp sax honorable leeral na lépp ah pour dire vrai xam nga fi am si c'est terminé rek man foofu laay addu mooy il faut que ñu. ñuy def la part des choses état daf ñoo njaboote ñun ñëpp soxna jaara man ak yow bu ñu jotee ca état la ñuy dem clamé ci mais parce que nekkoon nga fi état bu bees ñëw àndoo ak état bi yoon dal sa kaw ñu ne état moo dal sa kaw non d'accord yoon état la mais état moo dal sa kaw mais lan moo sabab dal bi ñu dal sa kaw. Mm-hmm. sa diggante yow ak nit la mu am loo xam ne détournement la wala loo moomul la nga jël ko ci ay milliards mais yoon day def liggéeyam mm-hmm. parce que yoon ñëpp la fi nekkal état ñëpp la fi nekkal surtout ko aussi bu dee am na ñoo xam ne tamit dañoo dal état wax état loo xam ne waxoo ko waroo ko ko wax cest di wax benn institution le président de la république le ministre wala benn citoyen lambda nii nga am loo ko war tax mu clamé la état day def liggéey bu dee président de la République nga la président du dégg sax la nga ko wax. Mhm. procureur bu boobaa mooy autosaisir parce que dañaa def li ñuy wax offense au chef de l' état nit ñi il faut ñuy donc def la part des choses am na nag yoo xam ne buñ koy faral di gis dafay nekk lu viral dafay nekk. lu baaxul ci démocratie mm-hmm. soxna jaaree dañoo war a xam ba ci démocratie lii gën a tax mu baax ak lii gën a tax mu dëgër mm-hmm. ku def lu mu war def ñu rëq ndiggam loolu ci liy gën a dëgëral démocratie mm-hmm. imaginons bu ñu ne woon waaw liberté d'expression ku ci nekk am nga droit wax ku ci nekk am nga droit xas président am nga droit xas ministre de l'agriculture am nga droit xas premier ministre loolu droit du tout boo ko defee dañoo war a rëq sa ndigg loolay a démocratie di gën a dëgër mm-hmm. parce que bu ñu jàpp ni démocratie def lépp lu la neex démocratie dafay dem ba ci nit soxla faju feebar bëgg faju faju démocratie dafay dem ba ci ci nit xiif bëgg a lekk-lekk ci nit mar bëgg naan naan yooyu yëpp démocratie daf koy ëmb le bien-être démocratie daf koy ëmb bu ñu jàpp ne nag bëgg wax lu la neex rek wax la voilà léegi nag li bonaat tamit ci démocratie mooy la manipulation manipuler pour se faire valoir wala manipuler pour dénigrer ab régime ki jël arrestation Samuel Sarr bëgg koo méngaleeg arrestation yële sous prétexte que état moom moo nekk di def li nga xam ni defuwul dictature nañ def la part des choses benn waaye tamit ña nga xam ne arrêté nañ leen. te toppal leen xaalis du diggante ñoom ak nit ak nit digganteel seen diggante la ak état lan la ñu def ba état di commencer di dal seen kaw. Mm-hmm. fii kenn waxu fi ne dañuy encourager la dictature et que ku fi nar def li nga xam ne régime bii passé def na ko nit ñi dañuy taxaw wax ko dañ koy posté dañ koy bind mais est-ce que am nañ droit tamit def fi loo xam ne ab citoyen defu ko fi woon. taxaw di xaste ak taxaw di wax loo xam ne amoo ci benn preuve man tey jii am na loo xam ne su ma taxoon fii wax ko ngeen ni ma déedéet arrêté mm-hmm. qu'on se dise la vérité peut-être après ñu génn ma génn fii am ñu may xaar ne ma lii nga wax fan nga ko teg est-ce que dama ñëw naan dama koo dégg wala nangam ak nangam il faut savoir raison garder. ah wax dëgg yàlla am na yoo xam ne rafetul baaxul ci dëkk baaxul ci dara pour se faire wala ak pour ñu xam la rek ak pour peut-être tur wala nangam ngay wax yenn yi. Mm-hmm. jaru ko quoi jaru ko fi. voilà ñu àddu wax ci beneen euh, ponk lu ñeel anniversaire du massacre de Thiaroye jamono ci toll yi nag Macron attendu Dakar mu mel ni euh, Macron daa ay fan yi néew dinañ ko gis ci réewum